yéen ñii nag seen liggéey bii kon ne xam na ni moom yàgg ngeen a taxaw ay waajuram di ko ko defal ba seen xol sedd guy yu ba luy ngërëm lu xeeti gërëm yu ne gërëm nañ leen ko ci te it wàcc tekkiwu leen seen laxasaay ba ci magam yii nga xamante ni ñoo too ñoo leen fi toogal it defal ngeen leen ko ba ñoom ñëpp seen xol sedd na ci yéen ba tax na seen jëmm yi kat day mel ni wuute wuute ak jëmmi xasida yi ngeen doon jàng ndax kat mën naa may lu ne lu takku mënta may ci àddina mut ndax lu waay mas am ci lu baax te amee ko ci ku baax takkoo rek ko may ak nangu di ak di ak ak ak ak di ak digg ndigal kon takkoo lu mënta may amut man nag kon rafet naa njortu ci ni yéen a xasida yii yii ngeen di jàng yéen a yem fi mu kon nag ginnaaw bu ngeen ñaanalee mun Muntaxa mu yàgg fi te wér magam ak i ak i ak i rakkam moom mii beral leen ko ñaanu boppam ndax dañ koo yen yen bu diis te mu am jom lool te am fulla ci li muy def te amuk dogu te war maal nag magam yëpp itam yërëm rakkam yëpp kon nag ñaanal leen ko mu yàgg fi tuur te yàgg feeg moom waaw yen bi daal na ko maamam téyel moom Sëriñ Tuubaa ba fa bëgg fa Sëriñ Tuubaa bëgg rek mu yóbbu ko mu yóbbu ko fa te ànd ko moom ci barke Cheikh Saliou Mbacke waaw loolu rek laa ci doon wax waaw dëgg la dëgg la waaw ndeysaan waaw booba de waaw booba de booba de booba de booba de man eh, dama ànd ak lenn ci bokki sama bokki taalibe yi dem si ñoom surtout jaxate ba ma fa demee eh, nu siyaar ko booba sëñ am sutu buy wax sax wax ji neexut a xam ndax kaddu gi day riir nun mënuñu koo dégg waaye sëñ Cheikh Jaxate mi nuy nuyoo moom ma yi dégg ay waxam sëñ Cheikh nag day bu bu baat bi riiree ba daanu mooy wax ak nun mun ni sëñ bi nee na njàng mii ñu fi jàng si woon bu yàggul nga xam ne waa kër sëñ Saliou fi jàngoon njàng moo xam ne fii la ci la ci la ci la li lépp ubbi ko ndax boobu waa kër sëñ sunu dongo yi ñoo ñoom la fa sëñ bi ñu jàngi fa bañ fa jàngee ba noppi nag ñu doxe fa addina bépp riir wuti kër si ñoom surtout ñu ni képp koo gis ak ko siyaar sama borom jéggal na say bàkkaar addina ak àllaaxira loolu ñu daal di bokk ñu daal di ànd nun ñu des si dong yi daal di fay dem sëñ Cheikh nag daal di nuy nuyoo léegi moom mu daal di ni sëñ ndax laajal ma leen ba xam bokkoon nañ ci ñi doon jàng si fii am ja bokkunu ci sëñ Cheikh daal di daal di koy laaj ni ko nu de mbàkke boobu bokkunu ci woon mu daal ni laaj leen ko mu mu mu mu wax ko muy dañ leen koo digalul woon wala dañoo dikkul woon rek mu dañ ñu ko ñu ko dañ ko dañ koo digalul woon mu ni kon nag digal naa leen dem leen taxaw fee jàng te li bëgg lépp ngeen fas ko ci nu tàmbali takkusaan di jàng di jàng di jàng ba ba ñu noddu timis ba ñu noddu timis ba julli timis nag dañuy soog a waaye biir jàng moom itam moom xam nga ci xaal ja mu nekkee woon daanañu àgg ci aw bayit ci jës bul xulóob ak muxadimatul daa ba ci jës buy ndaw yi ak ak mu ne nu bayit woowu sëñ Cheikh Jaxate di ñëw ni bayit woowu kat nee na ngeen baam ko nangami yoon léeg-léeg mu ni ñaar fukki yoon léeg-léeg mu ni fanweeri yoon ay bayit yoo xam ne daal moom moom loolu lañ ko doon def loo waaye lépp kër gi day mel ni yomal xiyaamati rek doo gis ku yëngu doo gis ku wax doo gis ku wëlbatiku ñëpp ni ñëpp ni ñëpp ñëpp rek ni cell ñëpp di déglu xasida yi di màggal xasida bañ ko defee di ko def ba ba ba ba mu mu yebal si ñoo xamante ni indi nañ booba sax man laa xam lat ko liñ bi ñu wax réew door mu daal di ñu daal di indi kees googu ba mu fees ak réew door daal di taaj di di di di ubbi biteel yi ubbi biteel bu ñu ot bu ñu ubbi rek sotti na ko nu ñuy jàng dina sotti biteel yi ba lat ko bi jeex mu daal di yeewu gàtt. joxe saakoob ceeb joxe ko koy togg lépp daal di lii mooy seenum reer daal di daal nag na ngeen sant yàlla bu baax a baax seen sëriñ boobu de maa ngi ñaan mu dund ba doon sëñ Tuubaa mu ni léng maa ngi ñaan boobaa itam yéen ñii kenn ku ci njëkk a dégg itam na ko mu faj ko mu mën koo faj te te moroomam du ko yëg. maa ngi ñaan boobaa itam tabax tabax yii ñu gudd gudd leen te kenn du leen ci ëppale kenn daal lu ne fàggul nañu ko ci sunu taxawaay boobu loolee nag dara mayuñu ko lu baaxu sëñ Saliou ak baaxu xasida yi yéen nag tàgguwu leen ak sëñ Saliou tàgguwu leen xasida yi kon nag jërëjëf jëf